mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen nekk yaakaar naa ci biir dëkk bi di Touba fan yëpp yéen a ngi gis saxaar si nga xam ne day jóge ci booru Baxiya jëm ci biir dëkk ba saxaar soosu nag lañ doon topp si ba ñëw fekk ko fii ci quartier bi nga xam ne mu ngi sës ci Baxiya ay kàmb fi nekkoon ñu fi daan tibb suuf tibbatuñu fi suuf sareeti mbalit yi ñëw au ñu dem ca camion tuur fa mbalit mi ñu ñëw fekk kër jàmbur yi tuur ko fi bam mu defut jàll fii nii bi coow li bëree lañ ñëw tasaare ko tasaare ko waaye ca lañ yem mbokk yi nekkuñ Mbëbës de Touba lañ nekk ñu ngi fii ci biir Touba ci weti bàq yi fii gis ngeen lii ay këri jàmbur la ñu ñëw di fi sotti mbalit di fi sotti mbalit di fi sotti mbalit ba buuju maa ni ñëw di fi jeex ay bagaas di ko taal ba gis ngeen ñii nee nañ saxaar si dafa wàññeeku yéen nag xool leen ne ndax lii lu wàññeeku la bi mu wàññeekuwul ñii nan lañ doon dundee lii nii ndax lii wóor na mbalit mii nga xam ne fu ne lay jóge mbalit képp dafa doy ñu taal ko mu génne saxaar soo xam ne ñi koy nooyi kenn xamul lu nekk mën na leen a dal xool leen xale yi bokk yi lii ñaata fan a ngi nii mu gi saxaar fii sapeur yi ñëw nañ fi mënuñu woon a dugg ci biir nee nañ bul bi ñëw na fi tey moo tax ngeen gis fii tane na waaye kàmb yaa nga na la ngeen di seen kenn tuuru fa mbalit gis ngeen weñ ñi may ñu jàmm lii nag yaakaar naa ne salubrité publique la lii dañ cee war a jóg ndax saxaar si kat yemul ci ñoom ñii rek de ci dëkk bi yëpp lay dugg nag te waa dëkk bi yëpp a koy noy ku jàpp ne ñu dëkk ci wet yi kàmb yi rek lay lor yaa ngi nax sa bopp ndax xool leen lii rek mbokk yi xool leen saxaar si te nee nañ dafa wàññeeku te ñun ñëpp ñetti fan yëpp moom la ñuy coow ñetti fan yëpp moom la ñuy coow léegi nag lii ndax ñi nga xam ne ñooy district sanitaire bi ndax lii jàpp nañ ne ay nit mën nañ cee dëkk di ko noyyi ay fan te dara du leen jot gis ngeen ñi fi jàmbat ñëpp di ngeen leen dégg am na ci koo xam ne doom la yóbbu hôpital ña ngi ko téye te xam nañ ne saxaar see ko jàpp lii de yaakaar naa ne yelloowul jekkul ci benn dëkk rawatin rawatina ci dëkk Serigne Bamba bii xool leen nag te déglu ñi nga xam ne ñoo fi dëkk ñu wax leen nag li nga xam ne moom la ñuy daj ñoom kenn ku nekk nag na bàyyi xel ci ñoom te bañ a jàpp rek ne dañoo sori Kambi ko wante noonu am nañ fi coono yoo xam ne ak jafe-jafe yoo xam ne borom sareeti mbalit yéen ñoo fi njëkkoon di tuur te nanguwu ñoo jàll ba ca biir kambe ndax kambe yi fii su deful dara waaye ñoom bu ñu fii xeex nañ fi def nañ fi lu ne ci mbalem Touba mi ay ay oto ay police ñoo moom lañ mujj woo sama mag jee dem na di fa puusante ay moolam yëpp ñu toj gis nga borom kër gi xaaju moolam yëpp dañ ko yóbbaale ci biir te dafa néew doole mi ngi nii daa àbb kër nekk ca nun nag ñetti fan yàlla ba ko ñeenteel lépp nañuy fanaani àll ak sunuy gone noo ngi nii jaaxle na jàq nan jooy nañ ci ndimbal wet gu nekk nag nun nag lu ngeen nu ci dimbalee te ya sëñ Tuubaa tax rek nu sant leen gërëm leen wax dëgg yàlla sonn nan jaaxle nan jàq nan te ay néew doole dong lan nag wax dëgg yàlla te nekk fi rek nag ndax bëgg rek Tuubaa te yàlla tax waaye daal amuñu ci menn moyen boo xam ne heure bu ne fu ne jooytu nan ko gisuñu kenn nag ba ci ki fi mujj ñëw ci suba laaj na waaye nun gisuñu kenn sama càmmiñ lee dong moo fi nekk di wax gisul kenn ku ko ci jàppale gisul kenn ku ko dimbali noo ngi ciy ñaan dimbal nag ci kattanu sëñ Touba. jàq nan tiit nan jaaxle nañ ndax danoo yor ay gone yo tuuti barki démb ba fi mu ne tolloo ci ñetti fan yàlla yoo nga xamante ne bis bu ne saxar saak ñuy bëgg a rey guddeeg bëccëg te ñor ay xale gisuñu kenn nag ku ñu xeetali gisuñu kenn itam ku ñu jàppale. ñoo ngi leen di ñaan daal bu fekkente ne am ngeen lenn lu nga xamante ne mën ngeen cee saafaraal ngeen dimbali ci kàttanu yàlla ak borom dëkk bi sonn na nag bay bëgg a sama doom ji dafa soj ba yàqu barki bi ba fin kenn ki moom dafa fanaanee fatt barki démb léegi ñoo ngi nii sonn nañ ci lool nag jaaxle nañ trop gone goo fi gis rek am na feebar am dimbal rek la ni ñaan te yàlla tax ndax sonn nañ torop fa sonn yam daal egg nañ fa ndax suñ doom yaa ngi nii sama doom ju ndaw ji mi ngi nii biig nelawul laa la wax saqat bay wàccu barke sëñ Tuubaa gis nga sun baat yi sax ni mu sensé te mënoo toujours foo tool di am mais moo ku xuyee la di leen ko jox ndax ma am ngi ma tewu ko waa dañu son bay bëgg a dee ñaati fan yi leenu daj da ngay yëg ci sareet yi ñu naa waa ñun suñ néegee bii nelawun defuñu dara man ko ñun ñi nga xam ne suñ buntu kër yee da caa ubbee noonu la ñuy def kon ñun ah malade gis nga kër gee ca garab ga kooku dafa wérul tabaski gi weeru tabaski gi fekku ko fa ma nga hôpital entré ca hôpital eh, eh, eh, ke docteur yi hôpital Dakar yi bi tabaskee ba pare lay doog a ñëw ci këram gi tabaskeewul ci këram gi ma ngay këram këram ga kenn ñëw fi pour wàllu leen wala kenn ñëw fi pour wàlluñ kenn amuñu kenn ku ñu ci dimbali soxnaama ngi nii booba tey fan yëpp ma a appat teg digg garabam ge doom ji tey jii la ko yanu yóbbu hôpital sonn nan torop barke Serigne Fallou Mbacke fa sonn egg rek nan fa bu newetee xet moo ñu bëgg a ak weñ yi ak medd mi laa la wax du noyyi du def dara tey jii noor bi gis nga ko li ñuy bëgg a dee te te lii lépp ay kër la lii lépp ay pàkk la lii lépp ay pàkk la sonn nan torop de moom wóor na yàlla suñ gone yaa ngi nii saqat la ni fanaane ba asamaan set te mënoo toujours ngay jënd meew di ko xooyal di leen jox suba bu ma xëyee bàyyi ba sama doom bu ndaw hôpital ku am juróomi at muy saqat fanaane saqat set papaam li ma bëgg a rey da nga ko yóbbu papaam moom yaakaar naa bu ma ko mën a yóbbu moom laa njëkk a yóbbu waaye mënu ko yóbbu amu boobu xaalis daf feebar kay juróomi at a ngi jugut fi mu waaye wax dëgg yàlla sooyee bas moom moo ko gënal lu ma dem ma nga nii noonu def dara lekkut ma yegg hôpital dañ ne ma dañ koy ma defal masque defal nañ ko masque fay naa ca ñaari junni ñu manqué juróom-ñett fukk léegi mu ne bu subaa nga indiwaat ko ba xam saxar na ci bi wala bàyyiwut saxar si moom moo ko jàpp bas léegi ne moom papaam ne moom ñu mat juróomi at a ngi moom fa mu tëdd moom jugu fa waaye moom moo gën a sonn moom waaye ne wax dëgg mën ma ko yóbbu yóbbu doole jigéen waaye ne moom sonn nañ lool suñ biir kër bi gëmul bët xool la fanaan bët set ma ko waxee demal génn gi dem yenn ji fenn mënu mënu maa dem ndax mënut a dox ba génn moom ndax moom sëq la yorom anga jekk daan feebar kër moom sëq la yorom bu yàgg waaw sëq la yorom dafa yàgg na sëqat si bàyyi xale bi waaye moom sëqat si moom dafa yàgg si moom lool tee ko waaw bu mënut a dox daal génn bu dem hôpital daal day jël taxi dem ñëwaat waaye sëqat si daal moo ñu sonal ak saxar si daal moom ku ñu ci dimbali ngir yàlla ñu bañati koo taal ñun dana sant xale yaa ngi xale yëpp rii sëqat waaw loolu daal moom moo ñu sonal moo ñu jaaxal lool. fii nu nekk fii nu nekk li ba ñu fi dëkkee ba léegi lii nii jànkuwanteel fii nii mboolem kër goo ci dugg kenn ku mën a may sa morom ndox amu fi ndax saxaar si xale yëpp yëpp yëpp ñu ngi tëdd fii barke sëñ Touba xale yëpp fii nii man mi léegi maa ngi door yóbbu hôpital te ay gone laa dugaloon ci yóbbu hôpital te dara waral ko lu saxaar si borom sareet buñ dikkee koo ne at koo ne bu sotti mu ne mu ne mu ne fii moomoo ko sa ñaari mètre donc moom nga xam sa bunt kër borom oto boo ne bul sotti mu ne boo andu ma sotti sa ko te ñun ay taalibe rek leen ndigal rek lañu dunde waaye sonn nañ coono boo xam ne noog yàlla rek ko xam li ñu jànkonte ne noog yàlla rek ko xam gën mboolam ñii de kii fii bu guddee kër genn kër goo xam ne mën ngaa mooy sa morom ndox rek amul waxuma la gone ndaw yi barke sëñ Tuubaa kun ci dimbale nag ba te tey sax tane nee nañ saxaar si dafa wàññeeku wàññi ko ne bu baax a baax a baax bu doon nëgan si démb boo boo ñii ku taxaw fi doo ko seet wallaay asin da ngay dugg ci néeg da nga gis koo xam ne day fat fat man sama soxnaa nga ne tëdd barki démb fi ne day fat maa ngi ko yóbbu hôpital ak a dikk barki sëñ Tuuba mën na doo jaar ci kër ko ta du kenn du ñaar te dara warul ko lu ko saxal fii depuis màggal ak léegi genn góor mënut a génn dem fen ndax xare ci lii ak di ci dox ndax nu mu fi jógee mënuñ ci dara nag fii daal sëñ bi metti na ñëpp feebar am na ñoo xam ne kër gi kii day génne soxnaam góor gee dafa génne doomam am na kenn ku ñax wax fee dañ ko mujj yóbbu hôpital dañ ko mujj rawale waa gisuma ko rek waaye neeñ ma dañ ko yóbbu hôpital ndax dafa newoon bay crise yooyu yëpp daje na fi waaye nag wax dëgg yàlla daal jafe-jafe am na ci koñ bii nag ci bépp boor du ndax du courant du kilif du ndox amuñu ndox amuñu ko gisuñu ku ñu ci dimbili daal ah, fii sëñ Cheikh Aliou moo ko moom daaru daaru eh, daaru Minayim waaye village di daaru Xudóos la daaru Xudóos la mbalit mi yàgg na fi sareet yi ak oto yi mbaleetu màggal Touba li waaw fi lañ ko eh, tuur lu ko gën a déborder nag oto yi Baye Fall yi waaye dañoo bind yi Touba ci kanam yi ñu ci maam Cheikh Ibrahima Fall kon nag moom ah, waaw kon nag noonu lan koy mën a ràññeet lee ginnaaw amuñu ca ñoom moom mënuñoo dugg xaw ma ay weer wu lañ xaw ma mënuñ ca dara vingt rues yi ñoom mënuñoo dugg. fee mënuñ ci dara yi ci bi ñu ñëwee kenn ko sa coobare nga doxee ko suufur boo wax mu daggu saaga def la la neex man mii de fee taxaw naa ni kooku waaxu ba dikk na ma damay sotti sa kaw ma bañ mu ne ku tee ma sotti ma sotti nangam taal nu jàppante ci sama pak ba mu ñu jëloo doj sànni ko ba bënn miir ba génn nañ fa paaka génn nañ fa jël si kee moo téye waaji mënoon nañ faa gaañ nit lépp ci mbalit mi waaye taxagul nag nu gis fenn gendarmerie ñëw na fi sëñ Abdou Latif ñëw na ñëw na fi ki Baye Fall yabaloon ñëw na fi waaye bañ fi jógee keroog léegi gisaatuñu leen fi sax wala ñu ne lii wala laa ak waa ku ñuy wax Mouhamad sëriñ Mouhamad Diop la xam ma moom it ñëw na fi la wax ma nama bu subaa dañ def li def na ak gisuma fii daal sëñ bi metti na léegi amu leen courant boor yi. amuñu waaye mi ngi nii kay comme daal dafa mel ne li ma waxoon ci suba rek daa mel ne daal danoo bokk Serigne Touba ne ko afalantu nafsi ñin fi nekkal te yaakaar leen def na ñooy buñ su rongoñ taa ñu wutu Mor Sarr fompal nu ko daa mel ne dañoo wàcceeg suñu rongoñ muy dal ci suñu mel ne daal dañoo beddi ni ma ko gisee wax dëgg yàlla daal sëriñ si war nañoo gees nun ñi dëkk fii metti le nan ci suba waxoon naa ko koñ kenn ku ne xam ne feri la néew ju doole moo fi dëkk sareet ñu nga bi peel fajar ñenn ñi dem boo gisu gisoo kenn góor ñëpp a ngi daw ci àll bi ay néew doole la li ñu doon séddale ci dëkk bi ku néew nii ñu di ko dégg ñu naan yor nañu oto di ko wër sax bokkunu ci gisuñu dara ñun ñëpp ordonnance yi moo ñuy bëgg a rey bàyyi mii doon wax ab dënn la yor boobu léegi dama ko yóbbu ba fële sax pour bëgg ma mën a nooyi moom mii ma moo tax fekku leen ñu ndax damay bañ mu daanu wala mu yor kii kër gee ñaari junni fare na ko hôpital léegi Aly Gueye mais ñaari junni fare na ko hôpital ah ñun ñii kër bu sa mbay gii kër ñii koo ci gis dem na hôpital mënu ma koo lim léegi nag li gàttal mooy li gàttal mooy xoolal kàmb gi xool ko fële di seen ko suuf si waa léegi xoolal diggante bii nag ñu bëgg fee def li am indi lépp dégg nga ma déggoo ma xoolal nag xoolal ko ba ba taw féex seen gën ko waa léegi nag lu tee ñu mën ko faa dugal léegi nag damaa waxoon gendarmerie yi ma ci fi dama leen yéen du ngeen atte xuloo xeex ngeen di atte te bu xeex amee ana ñu doon xeex ngeen di wax ñu ne ñoo ngi nii nga ne lu tax ngeen xeex te amuleen responsabilité xeex léegi ngeen sepp ne yóbbu nu nun duñ fi màggale li tax duñ fi màggale mooy maanaam tey da ngeen a xeex te amuleen responsabilité xeex léegi nag saretu mbalit bu fi ñëwati da nga jaar suñ kaw gën a gàttal daal mooy lool walla boog danga dugg ci biir kàmb gi moom dégg ngeen wala dégg wax bi xaw la kalaama maa xaala wa dal ñun nag bu dee courant ngeen di laaj jërul ngeen koy laaj commencé leen ca tëli ba commencé ca 30 ba commencé ba ca rang-rang sëñ yu Aliou bële ba fii ba xam gis ngeen fii poté koram dit xool leen ko bu baax rek ba déet man saa kër man ba 98 laa fi toxu si ba fay ndox 98 laa la wax de ba léegi damay fay ndox teewam ndox amuñu ko teewoo boo mën a xëcc nag laa la wax de amul teewoo ba xam nga fa mu yem ca koñ armée la daara jee ngay romb ba bàyyi daw juuf jële fa la teewoo ba yem ma am ko am doole jëf xëcc fa teewoo ba indi ko ba fii kan moo am kooku kon ndoxan amut am dit léegi nag bu guddeet bu guddeet ñu naan agresseurs yeeg bagage yeeg lu ne ngi fi xam nga lii moom lu ne dafi ne léegi moom mbalitu mbali taal bi moom taal bi moom mbali hôpital ba ko taal bàyyi daam yóbbu naa la ko yóbbu naa la ko bu la neexee mo won la boo demee ma won la loo xam mënu ko wax ci rajo rajo laa la wax de mënu ma koo wax ci rajo billaahi wallaahi taala am bàyyi daam bi won naa ko loo xam ne du ko nga ma laaj ko maa yóbbu ko ci ma ne ko kaay li coow li bari nañ dem ma wan la fa ñuy tóori affaire bi ak fa affaire bi départ oo ma wan la loo xamante ni doo ko nga yow te buñ àggoon ma ne yow ma wan loo xam boo ko diimee nii ngay def sa gim doo ko xool doo ko caméra waaw léegi nag moo ko taal mu boy di boy di boy ba agsi fii nii nii ma nga nële di tàkk boo fa demee raakol yi suñ doom yi ñoo koy manq ndi ko di ko xëcc raakol yi fees del ak deret yooyu laa mën a nettali li ma la mën a nettali séréngal yi moom li ma la mën a nettali nag laa la wax man Cheikh bi léegi nag li ci solution bi mooy ñun ñëpp ay taalibe dong lañ yow dong dong nag laa la wax de dara yu dong bëgg a ànd ak Touba ca kanam Touba moom sëñ Touba moom moo ko waxoon tànk amul tànki gannaaw kanam la ku ci bokk nag rafetalal ku rafetalu di nag sa bopp nga ko def ñun nag xeexuñu xuloowuñu ñaawaluñu di waxuñu kenn dara lu ñaaw liñ ci jublu daal mooy kuy dugg daal sotti ci biir kàmb am nga ak ñun jàmm. mbokk yi nag weddi gis bokk ca dégg ngeen nit ñi fi dëgg li ñu wax bu nawet jotee. du ñu am jàmm ndax xam ngeen ne mbalit mi mën nañ ne bu nawet bi jotee day dekkiwaat génnewaat yeneen ni tooke te fii nag gis ngeen askan wi fi dëkk mbooloo fi dëkk ay bokki taalibe fi dëkk ak seen i njaboot kon mbokk yi nañu moytu balaa ñoo beneen mbëbës fii ci dëkk bu sell bi di Touba te boo demee ca sanc Daaru Salaam ya di nga fi fekk lu mel nii lool nag yaakaar naa ne kilifa yi war nañ cee dëkk ndax lii kat mën na indi ay tension yu garaaw jële mbalit biir Touba traverse dëkk bi yëpp ñëw ba fekk doomu aadama yi fii ñu dëkk nga ñëw sotti ko fi ñëpp mun mënuñoo wax bu ñu waxee nga ne sëñ bi ngay liggéeyal sëñ bi nag munoo koy liggéeyal ba pare bëgg a toroxal nag ñi nga xam ne sëñ bee tax ñu bàyyi seen lépp ñëw fii nañu ñëw monsieur le maire ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi dénk dëkk bi nañu ñëw di nemmeeku ci ñi dëkk ci barab yi parce que fii kat ku ñu la ne fii ci biir dëkk bi la nekk Touba da nga naan déedéet new fi te ci biir dëkk bi la nekk bàq yaa ngi nii lamp yaa nga ne kon nañu seet ay pexe ci mbalit mi mais lii mënut a continuer parce que lii bu ko fi nawet bi fekkee beneen problème lay doon lii bomb à retardement la nit ñi nag dañ jàpp ne bu explosé fii la yem waaye mën na leen a fekk si da ngeen sëñ li wax léegi ngaa bu lay génnee jàpp ne euh, saxaar si ci jumaa ji la nekk ñun ñëpp toll nañ janatuma ma waa ca hôpital ba seen saxaar si xamuñu fu ñu jóge loolu nag mu ngi tasaaroo ci biir dëkk bi te nag balaa moo lor waa dëkk bi nañ ci jóg kenn du ne nag waxuñu ndax wax nañ wane nañ ñi fi dëkk it wax nañ wane nañ te foofu lañ mën a yem foofu lañ mën a yem de bu fekkee ne dañoo jàpp ne ñoom bokkuñ ci dëkk bi nañ ñëw wax leen ko ñoom ñoo xam nu ñuy def